docteur Barnabé Gningue ñu ngi lay nuyu. Euh, maa di fay di leen sant. yow yaay coordonnateur bu programme national bi xeex euh, jàngoro ji di kon euh, tuberculose nga nekkit spécialiste wàllu santé publique ñu war a màggal ñaar fan ak ñeent ci weeru mars bi ñu nekk bëccëg bi ñu jagleel xeex ngir tuberculose boobee lan la mën a xem ci feebar bi ak naka lay dikkee ci doomu aadama. jërëjëf bu baax a baax ci jokkoo bi ngeen ñu may tey yombalal ñu ko Euh, bés boobu alarba euh, bii ñuy séntu la ñaar fukki fan ak ñeent ci euh, weer bi ñu nekk nii muy mars deux mille vingt et te mu doon xew-xew boo xam ne monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale moom moo koy jiite ndax li Sénégal jànkonteel ci ay jafe-jafe. jóge ci tuberculose ak itam li nga xam ne Sénégal def def cee taxaw ngir xeex jàngaro boobu ni ay naataangoom yi bokk ci kuréel boobu ñu ooyee organisation mondiale euh, euh, de la santé euh, tuberculose def di jàngaro boo xam ne dafa yàgg Sénégal dafa yàgg ci àdduna si bés bi ñu magal bii rek ñu ngi koy magal ëpp na ñaar fukki at fekk bi nag mu ngi fi bu gën a yàgg itam ba na dañuy fàttali ci bés boobu euh, ñetti mbir benn dañuy fàttali feebar bi nan la taxawoo nan la saxee biir Sénégal ak nan la tasaaroo ci biir euh, réew mi ñaareel bi ñu wone nguur gi ana nan la taxawalee lépp li nga xam ne day xeex jàngoro tuberculose fii ci ci Sénégal ñetteel bi ñuy euh, ñaax askan wi ci lépp li nga xam ne askan bi war na ko xam mu jëm ci feebar bi askan bi mën na koo def ngir moytu feebar bi askan bi mën na koo def ngir xeex te daan euh, euh, feebaru euh, tuberculose. Mm-hmm. boo gisee nag ñu ñu ñu ñu koy gën di wax ci askan wi def ci ne jàngoro tuberculose day wàlle nit ki am jàngoro bi rawatina bi ñuy bi ñuy tuberculose pulmonaire mooy bu fekkee ne jàngoro bi dafa dëkk ci ci xëtëru nit ki kon ki feebar. nan la war a def bu bu nekkee kër ga du wàll waa kër ga wala ki feebar nan lay def ba bu duggee ci oto di tukki du wàll ñu nekk ci oto bi wala bés ba mu fa bërëb ba muy liggéeyee mu bañ faa euh, joxe mu bañ faa wàlle euh, feebar bi. Hmm. te loolu euh, def loo xam ne dañ ko xam léegi ci bu leer nañ ci mbirum médecine ba dañ koy def léegi sax waxtaan ak yeete. ku nekk xam ne jàngoro bi kat jombuma ma ndax jàngoro jàngoro tuberculose jombul góor jombul jigéen jombul mag jombul euh, ndaw mm. jàngoro bi man su ma ko amee mën naa ko joxe waaye nit bu ko amee itam mën na ma koo jox mm. kon nan laa war a moytoo su nekkee koo jox joxe mm. wala nan laa war a moytoo su nekkee euh, buggu bugguma bugguma see jot moo tax euh, su su nekkoon ñetti tànk la taxawee bis boobu muy jàngoro baa ngi fi nguur gi nii la taxawalee xeex bi ñuy xeex jàngoro bi askan wi lii mooy cëram ci biir xeex euh, jàngoro tuberculose loolu mooy njàngat yi nga xam ne. Mm-hmm. Euh, buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko tasee waxtaanee ko moo moo ëmb euh, xew-xewu alarba bi ñuy séentu ci tubaab ñu koy wax journée mondiale de lutte contre la tuberculose ci wolof mooy bés bu ñu jagleel xeex jàngoro tuberculose ci biir àdduna si. Mm-hmm. ñu gis ni euh, atum ren ji nag euh, thème bi ñu tàmmu ci horloge tourne lan la waxtu di wut ci feebaru tuberculose. Euh, foofu ni ko waxee ku wax ku wax montre xalaat waxtu. Mhm. muy ay waxtu muy ay simili wala sax ay seconde. Mhm. def di ci atum deux mille dix huit organisation des nations uni dafa woote woon ndaje bu mag a mag fële ci Amérique ndaje boobu. suñu kilifa réew moo fa demaloon Sénégal euh, son excellence monsieur le président de la république ngir xool ñaari ñaari ñaari ñaari cër bi jiitu mooy jàngoro bi ni mu yaatoo biir àdduna si. Hmm. Sénégal nan la mën a bokk la mën a bokkee ci ña ci koy xeex ñaareel wa segem euh, Sénégal tam dafa am jàngoro bi. kon Sénégal lan lay def ci biir Sénégal ndax xeex jàngoro bi fii bañ kon nattee ba ñu waxtaanee njiitu réew yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci euh, kuréel boobu. Mm. ñu gis ne bu fekkee ne liggéey bi jaar na fi mu war jaar ñu def ko ci waxtu ak ci anam yi nga xam ne moo lañ ko war def ñu gis ne fii ak deux mille trente cinq ñu ngi deux mille vingt et donc fii ak fukki ak ñeen moo ci des. Mm. donc mais jamono jooju ñu ñu doon waxtaanee deux mille dix huit la woon. Mm-hmm. donc njiitu réew yi ñu ne fii ak atum deux mille trente cinq euh, tuberculose mën nañ koo xeex daan ko ci biir àdduna si sëpp xam nga diggante deux mille dix huit ak deux cinq xaw na yàgg. Mm-hmm. njiitu réew yi ne ngir bañ am mbetteel boo xam ne du ñu gënal. Mm-hmm. du ñu xaar ba deux mille trente cinq ñu soog a xayma suñu liggéey. dañuy dañuy def bu ñu dawalee ay at ñu taxaw xool bu ñu dawalee ñu taxaw xool jamono jii nag euh, ñun comme ni ko yeneen réew yi di defee euh, dañoo dañuy séntu deux mille vingt cinq ndax euh, moom moom la ñuy def benn xayma bu am solo. Mm-hmm. ñu xool diggante deux mille dix huit ak deux mille vingt cinq fan la xeex bi toll ci biir àdduna si. Mm-hmm. moo tax organisation mondiale la santé ne pour de ci atum deux vingt et un bi euh, na réew bu nekk xayma lan la jot liggéey dalee ko deux mille dix huit ak deux mille vingt et un muy ñetti at su fekkee ne liggéey bi baax na. ñu wéyal ko jëmale deux mille vingt cinq su fekkee ne liggéey bi dafa doyadi ñu xool nan lañ koy dooleel ndax bu ñu egg ci deux mille vingt cinq ñu yegg fi nga xam ne fa lañ doon xaar ci deux mille vingt cinq. Mhm. may fàttali ne bu ñu taxawee deux mille vingt cinq suñuy bët ak suñuy xel mu nga ca deux mille trent cinq loolu moo tax OMS ne euh, waxtu bi taxawul su nekkee montre Hmm. Ah, waxtu baa ngi dem. Hmm. kon bu kenn xaar bu kenn toog bu kenn bu kenn bu kenn bu kenn bayandi euh, nañu nañu des ci biir liggéey bi nga xam ne mooy xeex tuberculose ci biir àdduna si. waaw nan la ñu mën a xam ni yor nañu doomu jàngoro joojee di tuberculose est-ce que ba xam laboratoire kese moo ko mën a dëggal. Euh, sa ñaareelu laaj laay njëkk a tontu laboratoire kese mooy dëggal ne nit ki def am tuberculose laboratoire kese. Euh, ma ma gaawantu itam dalal xelu ñëpp nguur gi jël na ay matuwaay jaarle ko ci ministère de la santé de l'action sociale ndax laboratoire boobu analyse ba nga fay def doo fay dërëm te loolu yàgg na Sénégal xanaa dañ koy fàttali. Hmm. Euh, euh, monsieur le ministre de la santé et l'action sociale daanaka ci ndaj yi nga xam ne moom ma koy jiite mu ngi wéy di xool est-ce que ñun ñi ne ci biir kër docteur yi ñu ngi euh, sàmmante ak li nga xam ne ku ñëw hôpital centre de santé poste de santé ñu war laa defal analyse laboratoire xool ndax da nga am tuberculose ministre la santé mu ngi saytu xool ndax nekk ñu di fay ko kenn kenn du fay kenn warul fay nguur gi moo boot doxalin boobu nguur gi mooy fay liñ ci war a fay. Hmm. donc laboratoire kese moo koy wax. sa say laaj bu njëkk bi euh, tontu si dina dina dina yomb. ci jamono jii nga xam ne dañoo nekk ci jamono euh, Covid 19. Mhm. ngir lan euh, benn bépp xeetu euh, mandarga buy tax ñu ñaaw njort ne nit ki dafa am Covid 19 comme dafa nekk feebar bu bees te xew. Mhm. bépp mandarga buy tax ñaaw njort ne nit ki dafa am Covid moom la ñuy ñaawee njort itam ne nit ki dafa am tuberculose. ñoo ko bokk daanaka ci lépp ma limal la si as tuut euh, nit kiy sëqat hmm. nit ki nga xam ne yaram day tàng rawatina ay ngoon ay guddi nit ki bu sëqat bu bu sëqatee tufli tufli bi am deret bu néew wala bu bëri nit kiy jeex wala nit kiy dënam di métti hmm. nit ki nga xam ne lekkam dafa wàññeeku wala lekkam dafa dafa dafa dafa gën a néew xam nga yooyu Euh, mars deux mille vingt ba léegi ñu ngi ñu ngi naan ko am loolu demal ñu xool ndax amuloo Covid demal ñu xool ndax amuloo Covid. Mm-hmm. gis nga nag balaa Covid. <laughs> tuberculose moo njëkk di joxe mandarga yooyu. kon ndax dina yomb ñu sekkale leen. wax dëgg fa yàlla mën naa wax ne tuberculose Covid la boo xam ne day dox ndànk di temp Covid tuberculose la boo xam ne day waaxu wala sax day daw gis nga fiñ leen mën a xaajatli tuuti. moo di ne jàngoro Covid mandarga yi day gaaw a feeñ ay waxtu lay def wala ay fan yu tuut euh, jàngoro bi feeñ taxaw. Hmm. tuberculose nag mandarga yooyu mën nañ def ay ay ayu bés wala sax ay weer soog a feeñ ci nit ki gis nga budul loolu daanaka ñoo bokk lépp ndax tuberculose euh, Covid 19 nu muy wallee ci sëqët noonu lay wàllee ci tuberculose tuberculose euh, Covid 19 nu muy walee ci euh, euh, tisóol yi. Hmm. tuberculose noonu lay wàllee ci ci ci tisóol yi tax na lépp li ñu taxawal ngir moytu Covid 19 ku ko taxawal yaa ngi moytu itam. tuberculose ba ci masque yi nga xam ne moom lañu santaane ñu koy takk Euh, bu fekkee ne yow da ngaa ragal ne da am jàngoro bi wala da nga da bañ da ngay ragal ñu wàll euh, jàngoro bi. Mm. kon ku miin xeexum euh, Covid 19 miin nga xeexum tuberculose ña yàggoon xeex tuberculose boobu Covid xewul. moo tax bi Covid taxawee gis ngeen ko nguuru Sénégal ni mu ni mu gaawee ci taxawaay bi. Mm. jaarale ko ci ministère de la santé dañoo jël lépp luy xeex tuberculose gis ne baax na ngir xeex Covid 19 euh, ministre de la santé jox ñu si nag ay ndigal yoo xam ne moom la ñuy topp euh, ba ci bés bi ñu taxaw di wax ak yéen. Hmm. comme ñoo bokk yépp nag est-ce que ku ñàkku ci Covid 19 bi mën ngaa mucc euh, ci tuberculose. bu fekkee ñàkk bi kese la déedéet ndaxte ñaari doomu jàngoro yi bokkuñu ñaari doomu jàngaro ñoo bokk ni ñuy wone seen bopp. yaram bu tàng tuuflit sëqët dën buy métti ak yeneen ak yeneen waaye ñaari doomu jàngoro yi bokkuñu melokaan ba na boo ñàkkoo Covid 19 ñu ngi am yaakaar bu baax ne da ngay mucc ci Covid 19 waaye nag soo bëggee mucc ci euh, jàngoro tuberculose il faut aussi ngay moytu fépp foo xam ne mën nga faa jëlee jàngoro bi ci loolu xëy na ñu bëri dañ ko réeree euh, ci seen biir xel mais bu xale juddoo Sénégal. ñàkk bu muy njëkk a ñàkku mooy ñàkk bi koy aar ci tuberculose ñàkk boobu. Hmm. xale bi fu mu juddoo balaa mu fay génn xale nga koy ñàkkee euh, ci mag ñi ci ci mag ñi na ngeen xool seen euh, seen seen loxo. Hmm. ci wetu mbag bi. Hmm. muy mbagu càmmoñ wala mbagu euh, ndeyjoor. am na benn mandarga bu fay nekk boo ko amee mandarga boobu mooy wan ne yow ba nga nekkee xale ñàkkoon nañ la tuberculose. mooy ñàkk bi jiitu ci ñàkk yi nga xam ne programme élargi de vaccination bu ministère de la santé et l'action sociale mu ngi koy wél ci biir réew mi euh, jëmale ko ci xale yi xëy na sax ak ak yaay yi mais rawatina donc ci ci xale yi kon nañ ñàkk Covid 19 ngir aar suñu bopp ci Covid 19 lu yàkkamte la ndaxte Covid 19 bu ñëwee ci yaram boo xam ne dafa am tuberculose Covid 19 day gën a gaaw am doole foofu tuberculose xejul ci yaram bu am Covid 19 ndaxte dañoo ne euh, ñett duñu xeex te ñaar mën kenn. Hmm. kon ku fagandikuwul tuberculose ak Covid 19 dañ lay soto te buñ la sotoo dañ lay mën. Hmm. moo tax ñaar yëpp la ñu war a wéyal moytu Covid 19 moytu tuberculose. waaw ndax mën nga ñu jox tamit ab xayma defal ñu ko ci Sénégal wërngal këpp fu ñu toll euh, ci tuberculose. waaw euh, xëy na sax ni ko mën a xaymaa bëri na mais dem na ci. tànnal rek yéen yoo xam ne xëy na dina gën a neex a jàpp. Hmm. benn bi saytu nañu ba xam ci lu leer ne jàngoro tuberculose mu ngi fii ci biir Sénégal ndax boo jëloon tey askanu Sénégal yëpp yëpp yëpp nga nga euh, gis nañu ne euh, fu euh, téeméeri junni Sénégal taxaw ci biir téeméeri junni yooyu. téeméer ak fukk ak juróom-ñaar am nañu jàngoro tuberculose Mm. kon xam kon boo boo ko xoolee ci askan bi yëpp kon bëri na. Mm. muy benn ñaareel bi dem nañ ba gis ne ci ñiy faatu euh, biir Sénégal yal na leen yërëm. Mm. am na ci lim boo xam ne tuberculose moo leen faat. Euh, ci ma bi ñu mujjee def ni rek ci atum deux mille vingt bii ñu génn gis nañu ne fu ñu amee téeméeri junni nit euh, fukk juróom-benn jàpp fukk ak juróom-ñaar tuberculose moo leen moo moo moo moo faat seen euh, moo faat seen bakkan. Mm-hmm. ñu dem ba lim ne ñu tuberculose yaatoo biir Sénégal gis nañu ne am na juróom-benni diiwaan yoo xam ne ñoo ëpp jàngoro tuberculose ndax fu ñu amee téeméeri euh, tuberculose juróom-ñett fukki wala juróom fukki ñu ngi si biir juróom-benni diiwaan yii ma leen bëgg limal Ndakaaru Thiès njaareem euh, Kaolack Sigicoor ak Ndar mooy juróom benni diiwaan yi nga xam ne fa la jàngoro tuberculose gën a bëri fii ci biir Sénégal mën naa sax yokkal la beneen. Hmm. gis nañu ne fu ñu amee téeméeri nit ñu am tuberculose ñeent fukk ak ñeent yi ñu ngi dëkk ci diwaanu Ndakaaru xam nga sax ma doon wax jàngoro Covid nan la mel nan la niroo mënee niroo ak jàngoro tuberculose. Hmm. ñu gis ne itam ne jàngoro tuberculose. fi mu gën a bëri muy Ndakaaru Njaay fala itam jàngoro Covid gën a bëri euh, bu fekkee dañoo xool. nan la jàngoro bi tase biir Sénégal. <laughs> waaw euh, feebaru tuberculose ana lan moo waral ñu koy méngale ak euh, feebaru ndóol. ah te muy te muy loo xam ne dañ koo seetlu te mën cee wax lu leer nañ ndaxte mën a doon buntu pour dugg mën a doon buntu pour génn. Hmm. gis nga ki ndóol. Mm-hmm. moo gën a gaaw a am tuberculose ni ki nga xam ne xëy na loxoom jot na ginnaawam. Mm-hmm. itam ku am tuberculose bu yàggee ak yow di nga di nga ñëwaat ci euh, naka la ndóol di yombalee dikum tuberculose tuberculose xam nga lan lay bañ maanaam fan la sa war a feeñ. Mm-hmm. mooy dëkkuwaay boo xam ne euh, antuwul maanaam yaatuwul ni mu war a yaatoo. amul ngelaw bu doy naaj bi di dafa dugg. dañ koy tëj guddeeg bëccëg te ñu dëkk ci biir euh, sakkan fu nit yi dajaloo te nga xam ne foofu kenn du ubbi bunt yi ak palanteer yi ngelaw bi mën a dugg euh, feexal bërëb boobu ak fépp foo xam ne nit ña fay nekk euh, dañoo bari ak ñi nga xam ne seen lekk doyul wala seen naan doyul ak ñi nga xam ne bu ñu amee sax yenn feebar yu ndaw yi du ñu mën a faju feebar ndaw yoo di di leen néewal doole moo tax ñu ne ndóol dafa mel ni mooy lal bi nga xam ne fa la tuberculose di ñëw di tëdd daf fay sawar boo amee tuberculose xam nga nee naa leen boo demee laboratoire doo fay kooku nguur gi moo ci taxaw. Mhm. Euh, garab yi ñuy fajee ku am tuberculose garab yooyu kenn du ko fay kooku itam nguur gi moo koy jënd euh, di ko joxe ci poste de santé centre de santé euh, ak hôpital wala bépp bërëbu fajukaay. Mhm. waaye ñun xam nañu ne buñ ki feebaree. mën na dem laboratoire mën na dem euh, euh, euh, nu ñu ko mën nañu ko jox ay garabam pharmacie mais bu demee kër ga na muy dundee ca biir kër ga day tax bu ñu amoon tey téeméer war koo dépensoo day naan comme kii dafa feebar nañ ko jox ñeen fukk bi wala juróom-benn fukk yi moom mu fajoo ko hmm. ñun waa kër gi ñu des ak li li li des ci téeméer bi. Hmm. loolu bu yàggee njaboot boobu day doon. njaboot boo xam ne ndóol dina fa dugg. Mhm. ndax seen lekk wàññeeku na. Euh, euh, jóge ci li nga xam ne ku am tuberculose dafa dëkk ci biir euh, njaboot boobu. bu mhm. fekk doon liggéey nga am tuberculose dootoo mën a dem liggéeyi. Mhm. ndax ci tuberculose boo koy faj gën gaa gàtt foog nga faju juróom-benni weer waa boo doon liggéey kat nga war a faju tuberculose juróom-benni weer xam nga kon doo liggéey juróom-benni weer. mais boo liggéeyul juróom-benni weer doo feyeeku soo feyeekul ndool dikkal la la. muy lu métti eh, yow yaay. muy lu métti coordonnateur programme national de lutte contre la tuberculose docteur Barnabé Gningue ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa disponibilité. maa leen di gërëm di leen sant. en merci beaucoup c'était tellement intéressant qu'on a.